mbokk yi seetaan euh, BF TV ñu ñëwaat ak yéen seen émission à nous ci beneen numéro te ñu amaat ci mbégte bu yaatu di ci dalal euh, Saliou Diouf mu nekk international sénégalais ci wàllug euh, taekwondo mu am ay jaar-jaar yoo xam ne tamit yu bari la ci biir émission bi di ngeen découvrir kan mooy Saliou Diouf Saliou nuyu naa la. asalaamaaleykum ah, wa rahmatulah maa ngi leen di nuyu di leen ziar maa ngi tudd Saliou Diouf international de taekwondo sénégalais. wax nga ko Saliou Diouf taekwondo international sénégalais mais laata loolu jaar jar yi fi nga commencé ba mëna nek international sénégalais boo ñu ko doon tënkal lan lañ ci mëna japp wa comme ni nga ko waxee sama jar euh peut-être début bi xawoon na métti parce que dama dama yéex commencé taekwondo parce que m'a ngi tàmbali en 2011 mais alhamdulilah euh, euh yi ma dugg. Euh, euh, loxo champion là aussi loxo expert là donc ak sama engagement ak sama détermination donc euh, loolu moo ma mën permettre ak malgré aw ma defuma ci année yu bëri bëri bëri bëri mais alhamdulilah mën naa wax daal sant yàlla daal pour le moment waay. voilà 2011 nga ci dugg 2011 ñu ngi ci 2020 te international nga maanaam booy xool ci ni nga euh, carrière bi international débuté en 2011 presque deux ans rek l'Architecte. ci participé au championnat du Sénégal c'était ma première participation donc bu ma euh, médaille d'or nekk champion du Sénégal après ci lañ ma convoqué test équipe nationale en 2014 donc en 2014 ci la dugg équipe nationale donc euh, nekk fa titulaire donc mën naa wax en 2014 ci laa ci laa nekk international sénégalais. 2011 ci nga commencé taekwondo 2014 nga am sélection équipe nationale te loolu lépp ci Mbàkke nga nekkoon euh, di entraîner wala da nga génnoon Mbàkke dem ci yeneen salle yi di fa tàggatu. fi laa fi laa nekkoon fi laa doon entraîner sama club mu ngi fii Touba foofu laa débuté ba ni may équipe nationale foofu laa nekk di entraîner foofu laa nekk di entraîner ba léegi tamit. bu nga xam ne ma bu ma nekkee équipe nationale fu laa doon dem di entraîner ak ak ak ak ba équipe nationale mais su dul loolu Mbàkke laa dëkk te fi laay fi sama saa la nekk. bi nga jógee ci euh, sélection équipe nationale boobulee euh, lan la la indilaat depuis 2014 ba léegi yaa ngi amaat ay sélection wala yaa ngi nekkaat ci yeneen compétition yi wala tamit ndax am na ay trophée yoo xam ne am nga ko ci bi nga jógee ci sélection boobule en 2014. waaw xam nga euh, athlète bu nekk pratiquant bu nekk da ngay da ngay rêver dëgg dugg équipe nationale donc une nga intégré équipe nationale donc say say say sa liggéey day day day yokku waaw man tamit bi nga xamee ne dugg naa équipe lu ma lu ma doon entraîné par rapport ak avant may dugg sûrement entraînement yi day yokku et tamit fi ñu doon xaar fi ñu lay xaar du bokk ak ak ak avant donc yombul woon. jóge fii di dem Dakar chaque weekend wala chaque trois jours nga dem entraîner ñëwaat dem ñëwaat mais euh, ak ak suñu suñu bëgg-bëgg ak suñu suñu gëm-gëm ci ci taekwondo bi moo ñu doon permettre chaque weekend wala chaque deux jours trois jours dañuy dem Dakar entraîner ñëwaat en même temps di participer ci compétition yi parce que nekk équipe nationale du la tere ngay participer ci yeneen compétition yi donc dañu doon continuer di participer ci compétition yi loolu moo ñu permettre trophée yi ñuy teg fii Sénégal euh, presque trophée yëpp gagné nañ ko voilà. champion du Sénégal oui, trois fois euh, champion du Sénégal jël naa trois fois oui euh, championnat régional de Diobel, j'ai jël sept fois sept ou huit fois euh, catégorie poids lourd pile de 87 kilos poids lourd quoi champion du Sénégal trois fois nga dëkk tey bi nga dikkee eh, ñi nga xam ne ñoom ñooy waa dëkk bi ban taxawaay lañ ci am ndax tey jii yow maanaam niñ la war di jàppee ñu la koy jàppee rawatina ñi nga xam ne ñoom la ñuy wax autorité ci dëkk. waaw man nag euh, au début bu may bu may commencé du ma woon dem ci autorité wala may dem ci kenn pour out euh, soutien wala ku ma jàppale man dama dama gëmoon ne rek ak ak sama entraînement fu ma bëgg a egg mën na ma fa eggale ak sama soutien wu famille euh, en 2015 bu ma première participation à la compétition internationale c'était au Mali Je décroche une médaille Je suis suis ci décidé de comme doomu mon donc compétir au niveau international en médaille donc donc dina de ma présenté ko autorité de bi donc suis euh, le maire pour présenter ko ko ci sama sama sama ay objectif ak samay projet. Saliou euh, trois fois nga nekk ko champion du Sénégal nga nekk international Sénégal ci wàllu tay taekwondo am na loo xam ne moo la doon manqué pour nga yegg fi ngay bëgg yegg am na loo xam ne tamit bëgg nga ko andil ñi nga xam ne ñoom ñooy waa Mbàkke te li la fay tee yegg ak li ngay soxla dëgg-dëgg pour am ndam yooyu noonu lan la. waa xam nga boo nekkee boo nekkee jeune li ngay def bëgg nga ko ba pare yow nangu nga liggéey donc li lay li lay manqué mooy ko la jàppale te fii euh, au niveau de Mbacké fii loolu mooy suñu problème ñun ñun ñun pratiquant dans dans martial yëpp loolu mooy suñu problème parce que war nañu war nañu dañuy dinañ soxla benn benn dojo boo xam ne benn benn salle boo xam ne fu la ñuy defee suñu ay préparation boo xam ne dafay dafay dafay dafay dafay méngoo ak salle internationale yi mais gis nga fi nga ma fekk nii man fi laay préparé samay compétition yëpp laay ñëw pour préparer compétition yi donc manqué am muur bi manqué wuñu gëm-gëm ba pare manqué wuñu courage mais lu ñuy manqué mooy soutien jàppale bi parce que lu ñu lu ñu permettre woon ñu travail ba fii nii loolu ci la ci lañ nekk ba léegi mais day am benn niveau booy toll donc li nga doon li nga doon liggéey da nga ko war a yokk et say say adversaire dañuy dañuy dañuy liggéey comme yow ni ngay liggéeyee donc pour nga pour nga mën leen dépasser il faut nga def ben ben affaire bo xamni peut-être ñom duñu duñu duñu mëna ag àgg lool nak moy manké fi parce que fi do am soutien bi ba paré entraînement bi récupération bi ak hygiène de vie bi nga xamni moy mom la athlète international wala soxla donc fi dang koy manké lu bu baaxa a baax mais on se débrouille avec li ñu waaw li fi nek wa wa wa li nga xamni moy taekwondo bi yow nan nga ko gisee jamono ji ci euh, réew mi. wa taekwondo xam nga dafa nek ben discipline bo xamni peut-être nit ñi duñ koy duñ koy bàyyi xel lu bëri mais boo xoolee ci côté médaille mooy discipline bu nga xam ne moo ëpp lu muy dugal médaille ci Sénégal mooy discipline bu ëpp lu muy dugal médaille ci Sénégal suñu ay résultats macha allah mais ñun lu ñu lu ñu lu ñu lu ñu bëgg rek mooy mooy mooy ñu gën ñu ñu gën ñu jox considération gën ñu jox suñu suñu suñu gëdd. donc loolu la ñu soxla euh, au niveau national comme au niveau international waaw surtout tamit euh, Sénégal fii. ñu gën a ñu gën a ñu gën a gëddaal poids lourds yi parce que boo xoolee compétition yu bëri donc ay pois légers lañuy la ñuy ëpp lu ñuy yóbbu alors que lour yi mën nañu apporter dara Sénégal parce que boo xoolee champion olympique euh, huit champion olympique deux huit champion olympique yëpp Afrique yëpp ci ay catégorie poids lourds lañ donc yaa am na benn gabonais huit champion olympique la aussi Niger am nañ huit champion olympique te seen ay poids lourds ñoo leen ko apporter donc Sénégal jàpp war nañu gën war nañu mën a mën a mën a gëm seen ay poids lourds xam ne war nañ leen mën a indil euh, médaille comme ni ni ko yeneen lourds yi di apporter la seen si seen dëkk yi. li ñu amoon na euh, ci waxtu jeex na ñu ngi sant bu baax euh, di la gërëm ñu bàyyi la rek nga joxe kàddu yu mujj yi. waaw kàddu yu mujj yi kàddu cant ak gërëm lay doon ci ñëpp ñoo xam ni depuis le début ñoo ngi ci sama ginnaaw li ma jàppale en commençant par ma famille ñoo xam ni. lépp lu ma dugg ñu dugg si dugal si seen loxo dama dama dama soutenir su ma agsee fii alhamdulilah yàlla ak ñoom la waaw jàppale nañu moom bu baax a baax a baax waaw di remercier aussi euh, sama maître maître Momadou Diop waaw di remercier aussi membre club yaakaar yëpp di remercier surtout sama grand Modou Faye mi nga xam ni fi ma fekk ni may préparé wu moom moo koy gérer donc vraiment grand bu baax la yaatal na ma fii à chaque fois ma compétition je prépare la saison suis là entraînement matin soir sans problème vraiment je aussi BFTV merci. jaajëf euh, Saliou Diouf international euh, sénégalais ci taekwondo nekk trois fois champion du Sénégal actuellement nekk capitaine équipe euh, régional bu jurbel ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm yéen mbokk yi nga xam ne tamit yéen a ngi doon topp ci BFTV ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm seen émission à nous de la woon présentation Seydina Alioune ci caméra bi Papis di wax rek mën ngeen wéy di ñu topp ci Facebook ak ci YouTube BFTV Sénégal jaa ngeen jëf di leen jox dig daje beneen yoon.